simila waxoonoon der na gémmiñ de lu mës ta am kon am na ubbi tribune yéene kaay nañu lu tolloo fanweer ak juróom ci ay doomu aadama de ñoo am na corona ja démb allahu akbar la ilaha illallah docteur Marie Xemes Ngom Njaay de moo wax la ko wax te moo ni gis na kon masque yi de la wax moo xam ca biir la administration ba ci bi ci biir marché yi la waaye seetlu gi de mooy wàllum corona ji ah, ma nga kanam rek la wax maa di taali waaw dama ne leen docteur Marie Xemes Ngom Njaay waaw nee na am na benn cas communautaire da ci doonu ñaari tali la ilaha illallah source ané ni ki démb dee waaw beneen góor daal nay dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la Sénégal am na sixième décès góor nga kon juróom-ñaar fukk ak ñeent kon lay am dee dëkk ca diwaanu Louga fa la ko defee njàmbur waaw ay booru takkusaan 17h40 la faatu libération yéene kaay na dëgg la gis nga Covid yi la ah ma ngay rey ci Sénégal ba léegi ne de dama ne la ñetti doomu fi mu nekk ni la am nañu jàngoro ji professeur Moussa Seydi ci grand place waaw nee na dama ne la kaay daal bu bëree ñii dee bari ah professeur ne amul ma dem te ñëw dama ne la kaay bu bëree ñii dee bari sur sa année te gis ni ki démb dee ah ci digg bëccëg bi waaw am na beneen cas communautaire waaw boo xam ne nag ñëw na daal di fekk si juróom-benn malade yi nga xam ne de ñoom la ñoo Abdoulaye Diouf Sarr compté woon ci suba gi te gis nga Touba gée Touba moom ci saxaar la toog moom Touba ci saxaar la toog dama leen ndaw si nga xam ne pharmacien biologiste la waaw te ñu testé woon ko ne dafa am corona te ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ah daal di rey wàll nag benn collègue am xam ne kon ca laboratoire ba la ne wàll na tam ñetti ñoo xam ne kon ca biir njabootam ga la ne laay laay la la ñu ne bi njaajal joom te ñoom moom ñoo jël ko bi mu xoolal ma diwaanu Pikine waaw ña nga commencé woon di nooy naan alhamdulilah waaye juróom ñaar daal dinay ñëw na fekk si la fa nekkoon de léegi am na fanweer yoo xam ni kon dañoo corona yéeni gi ne xoolal guddiir yi ke ñooñu moo war nañoo mere lool waaye Mauritanie ji nga xam ni kon moo leen ko wàll ndax guddiir yi léegi am nañu vingt-sept cas allahu akbar professeur Fatou Samb Dalal yamu ca ndaxte nee na dama ne askanu waaye tollu nañ ci juróomi téeméeri junni genn wàllu million waaw waaye man professeur damaa yaakaar ne ñi xanaa sensibilisation beeg ñaax beeg yooyee dégguñu ko rawatina nag cas communautaire yi nga xam ne fi mu nekk ni la ça devient inquiétant mbir mi nag fi mu nekk ni ragalu na looloo tax daal ma naan géejawaay nañ leen fa tëj leen enquête yéen a kaay ne woote bi kay mooy nañuy jël juróomi téeméer jàpp ci ay doomu aadama defal leen test la waaw direct news de gis mi la ah bu góor yow ne dina am ñetti xale yoo xam ne kon dañuy dee allahu akbar laa ilaha illallah évidence yéene kaay ne xale yi nga xam ne dañ leen a war a jëlee kon ci kaw tali bi de waaw ndey sali jëng jóob mi de lii test la de lii test la de critique yéene kaay ne en tout cas li de waaw kër ndey sali jëng jóob googu lëndëm lëndëm rek dara leeru fa ndimbal li ci corona gi waaw corona ji day tribune yéene kaay nee na ak weeru koor gi waaw nit ñaa ngi tiit de ñëpp a tiit fi mu nekk ni li maa la ko yow xoolal ma Marseille ndogo yi nag couvre poos yaa ngi nii fëkk dërëm nekkatu ca cas communautaire yaa ngi ci dëkk bi lee Serigne Sidi Alxuraan ci la teemoo yéene kaay waaw nee gis nga doomu jàngoro ji le té bu nawet bi ñëwee ah bu demul it li fii des dootul bari de nawet ba box sobli ne waa Jamra day waaw ña ngay sàkku nag ñu ubbiwaat kon millions yooyu ci koor gi taaral weer wi la rek taaral weeru koor wi naay sal ko la rek du dara président Macky Sall ci la solo yéene kaay bu ko laajee de waaw danañu ko def maanaam tëj ñu confinement général aar suñu moomeel de ci vox populi nee na corona xiif waaw corona xiif boo sàgganee nag moo nar a am kon ca kaw gax aar di taali waaw parce gis nga béykat yi sàmmkat yi ah, dafa tuñu dara lu leen mën a indil xaalis dañ leen a bàyyi noonu yow lu may gis nga waa kaw googee waaw seen wàllum koom-koom gi dee lu yàlla xam doy na dama la lu may tëj nañu ko ñoom seen bopp dañ leen a forcé tëj leen ca biir kër ya séddaleen ndimbal gi gouvernement bi di joxe waaw kumba am de kumba amul de ca am yéene kaa ne gis nga ndimbalu lekk gi nga xam ni moom la gouvernement bi joxe de waaw banlieue ba da ngay rayante seen biir xibaar di taali le quotidien yéen kaay ne ah xoolal réccu fal Macky mouvement ñëw abu mbaay bi waaw nee nañ te waxi naan nim saat ko àndul ak ñoom rasin taalaa doo ca am ar di taali yaa jum wala maa jum lii am distribution partisane ak électoral liste fa am boo àndul ak ñoom doo leen votel nguur gi doo ca am ca waxi naan nim saat eh way samba du samay kàddu de abu mbaay ko wax le tee mooy yéen kaay dee lam wax waaw mooy a daal dama ne la junni milliards yi mën na <laughs> waaw waaw yow FMI rek ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay milliards la joxe BOAD 15 milliards Le Soleil yéene kaa ne Union gis na comité bi nga xam ne moom la ñu taxawal waaw ngir muy saytu na koppar goo gée te général François Ndiaye jiite ko opposition bi de Toussaint Manga Habib Sy ak Yacine Fall la tànn waaw waaw société civile ba de Omar Diop la ñu proposé Birahim Seck turam nañ ko waaye waal joojo Ndiaye ak mu Ndiaye Cissé dañ na mbir tourisme intéressé li intéressé sénégalais de mooy coowal ak il lé ak Sénélec waaw waaw les si ko yéene kaa ne scandalu bu mel ni la de bi Sénégal amee ba léegi mu supee am aha waaw waaw waaye ñeenti jëf yu doy waar a ngi nii tege bu njëkk ba mooy nañ ko nattee timing ba durée ba nag nañ ko defee ko parga modd baak montant ba ah doy dama ne la gis nga scandale bi waaw moo gën a garaaw fop bato Karim Wade yooyu ñu fi doon wax wala essence boobee nga u Sénélec ya te ñu ne woon dañ caa raxum ndox di fuel ba waaw coow ak